a dellusiwaat nañ ci tafsir bi biidnillah xam ngeen ni noo ngi ci suuratu nuur wara a ci boppu aaya soixante baada audu billahi min alshaytan arrajim ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الحمد لله رب العالمين noo ngi bàyyi ko woon fi borom bi taala wa tabaarak dinu xabaaree ni jigéen ña nga xam ni mage nañ te soxlaatunu borom kër mën nañoo wàññi seen ak col ca kër ya te bañ a génn di band baraj band baraj mooy lu ñor nga génn lu ñorul nga génn borom bi nag ne su fekkee ni fegu nañ loolu moo gën mu daadi ñëw tey bunt boo xamante ni day leeral aadaabul islaam gin yi nga xam ne islaam jàngale na ko ci dugg ci kër di lekk ndax yan kër ñoo jaadu nga lekk fa ak yan kër ñoo jaaduwul nga lekk fa doonte jullit ñépp benn lañ waaye dafa bëgg a ñëw ci buntub jegeñaale borom bi taala wa tabaarak njëkkee ci buntu jihaad ñi nga xam ni islaam da leen may permission ñu bañ a dem ci jihaad ndax jihaad mooy dem joxe sa bakkan jihaad mooy dem jaayanteeg sa boroom dugg ci biir lëggam ay jaasi ak lëggam dee loolu nag ñi ko mën a def mooy ñi wér te amuñu benn gàllankoor ci seen yaram moo xam ñu nekk ay xale yu góor walla ay waxambaane walla ay mag am na ñooñ suñu ñëwee ni dañuy dem jihaad kenn du leen wax dara ndax bëgg gu ñu bëgg àjjana waaye seeni cër nangu na ko am na it ñoo xam ni bëgg nañ waaye yàlla moo leen teg lattu nattu ci seen jëmm ci seen yaram ñooñee nag am na te ñu daan nangoo toog ngir nangu handicap bu yàlla teg ci ñoom waaye amoon na ñoo xam ne gisuñu woon seen handicap ñoom dañoo gis ni comme mbir mi mbiram àjjana la ku volontaire mën a dem mën naa dem moo tax boron bi ne laysa ala al ama déet di war silmaxa bi ci ñàkk a dem jihaad xam nga ni silmaxa bu demul jihaad kenn waru koo wax lu la tee dem ndax yorul bët yu mu xeexe waaye kaay ma nettali la ci maarakatu qaadisiya am na silmaxa bu yéeme di doomu bàjjanu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi nekk silmaxa bi maarakatu qaadisiya di taxaw dafa jékki rek ñëw takkaayu solu ñëw taxaw Umar ibnu Xataab ne kaaw ayow foo jëm mu ne ko jihaad Umar ne ko looy uti ca jihaad ba mu ne ko damay uti shahaada dama bëgg a dem dee fa ngir ma am àjjana allahu akbar Umar ne ko yow jihaad wàcc na la mu ne waaye man wàccewu ma ko sama bopp Umar ne ko nan ngay xeexee mu ne ko ah, xam naa ci lenn de ragal day mi ngi tàmbalee ci am bët kon ku amul bët xamut lu muy ragal ndax gisul ponkal gisul jàmbar gisul fetal gisul jaati <laughs> ragal ku am bët koy def ndax bët mooy natt soo xoolee bi set yi bi nga commencé arrière waaye silmaxa moom gisu ci dara moom noo munti toll dalay affronté yaa mën wala mënoo yatam lay jël rek wëndeelu xaw ma ndax mos ngeen fekkee xeexu silmaxa wala moo gën a naqaree àtte xeexu silmaxa booy àtte ci turi yi ngay jaar ngir ñu xam la eh Moodu taxawal man la diw waaw Ousseynou taxawal man la diw jaa yat yi wëndeelu kër ku mu jot fàdd moo tax ñëppay daw soo leen di àtte nag xel nga leen di àttee te wax ba ñu xam yaay kan taxawal eeg koo ci këf nag dawal ak moom feneen fu sa moroom eggul di wax ba ba ñuy taxaw mais bu loolu amut danañu falax rajaxe paan yaag yépp ndeysaan caaro yi ñoom ñaar ñëpp gaañu nan rahimahumullah samay grand lañu woon baaxoon lool dañoo jote woon ci bunt usine ndox boobu ñun ñu ngi fubal nekk ci biir terrain bi di entraîner noonu ma jékk rek dégg Omar Sall Omar Sall gaa yi daw kaay sa gaa yaa ngi xeex de man ne ko xeex lan daw ñëw ci robinet bi fekk bagage yi këlëx këlëx gi rek ndeysaan ma daw yuuxu ndeysaan grand Aline ndeysaan Aline Mbeng rahimahullah yàlla yàlla jéggal man la Umar man la Umar ñoom nag ñu ngi ma doon woowee xulla fi ma xay boo tuddee Umar Ousmane Ali xulafaa lañ lay wooye mais dañ koy dagg bu xul xulla rek li muy tekk mooy tur ci turu saxaaba yi ngi war ñeenti saxaaba yi man la xulla man la xul xulla téye kenn ki ndeysaan arrière rek moom fexe ba téye keneen noonu laa defe def ndeysaan ba ànd yóbbu leen ba kër ga incha allah ñoom noonu lañ leen di attee waaye bu dut loolu xëy balaa nga leen atte ndax mën ngaa ñëw di atte ñu fëggale yet nga jaare fa xëm yow kon silmaxa bi mooy ibnu ummi abd ne umar ibnul xataab man de lenn rek lay ñaan mu ne amu ah, ne ko jox leen ma raayatul islam drapo bi naa ko téye ci kanam rek man xaw ma daw xaw ma arrière ndeysaan noonu lañ ko joxee drapeau bi moo ko téye kon am na ñoo xam ne ajjana jaral na leen lu ne borom bi ne laysa ala al ama xaraj warul ci ab silmaxa benn bàkkaar ci ñàkk dem jihaad ndax am na lay mu ne wala alal araji déet di war bàkkaar ci ñàkk a dem jihaad ci ab laago ku amee handicap moo xam ci tànk yi la walla ci loxo yi te mu am laago moom it borom bi nee na dem jihaad waru ko kenn ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tur baa ngi sama xel mais dama koy fàtte ci al ansar dafa ñëw ni yonent bi sallallahu alayhi wa kuy dem àjjana sa cër yépp day wér yonent bi ne ko waaw mu ne ko man dama bëgg nga ñaanal ma yàlla sama soox bi may soox fii ci seen wet ma di ko sooxee àjjana yonent bi ñaanal ko yàlla kon saxaaba yi yàgg nañoo def jaloore dab leen mënul nekk ñoo xam ni waxuma sax nga dab leen seen ab dànq boo jaamoon yàlla junni at mënoo am lu tolloog seen dànq maanaam benn tibb saxaaba ci dànqub ceeb nga wëññi pepp yi ni mu toll yow boo ko jaamoon yàlla junni at doo ko am ci saxaaba yi kon nag keneen koo fi tagg réy làmmiñ la jàpp rek ak ñàkk xam waaye gaa yi dem nañ ñoom lañu war a roy ndax hum alladina tabawwau daara wal imaana min qablihim ñoo bàyyi seen kër bàyyi seen jabar bàyyi seen doom bàyyi lépp ngir seen mbokk kenn ci ñun mënu ko te def ko ba pare nag borom bi ne wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana mu xasoo sax lañu koy def dañuy gënal seen moroom ci seen bopp donte dañuy ñàkk ba duñu lekk waaye seen moroom daneen la gënal seen bopp ñun nag daraja boobu moom àgguñ ci moo tax borom bi ne walla alal marid déet di war aji feebar ci ñàkk a dem jihaad xarajun benn tiis wala benn bàkkaar loolu jeex muy bunti jihaad kon ñi am permission ci jihaad ñii la waaye damay doog a takk jabar damay séet noog séet bi ñëwagul ak damay jéem a yooyu moom kenn du ci am buntu ci jihaad moo tax nga fekk saxaaba yi ñu nekkoon ñu yéeme am na ku ñu naan Hanzala ñu koy woowee ghasilul malaika Hanzala dafa gaañu malaaka ya ko sang fa ñëw xare Uhud fekk mi ngi doog a séetal jabaram ñëw ci guddi bi jabaram ñëwee ci guddi mu fanaan ak moom dégg hayya alal jihaad rek tëb soxna su ne ko doo sangu moo ne yonent bi du woote kenn di taxaw di xaar lenn noonu la demee ak janabaam ca xeex ba ñu rey ko bi saxaaba yi di wër ñi gaañu ñu ngi ko fekk mi ngi tëdd muuñ mel ni kuy reetaan ko jam ay fett bi ko gaa yi yëkkati yëkkati bopp bi ndox mi ne car car car ñu laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi ne malaaka yi ñoo ko doon sang janaaba kooku mooy Hanzala kon saxaaba yi mbox ku duggoon ci seen dund sarango ñuy tuuru waaye kenn du leen dab kon déet di war aji feebar dem te jihaad léegi nag mu ñëw ci teg nu lekk ci kër yi nga xam ni mën nga faa lekkee te doo am benn contraint dafa am kër yoo xam ni boo fa duggee di fa lekk tuddul xaaraan waaye am na kër yoo xam ne boo fa duggee mën naa tudd xaaraan donte baat bi xaw naa ñaaw waxin wi nag lañu ko jàppee mais jëf ji dara nekku ci xaaraan mooy ñëw di xaar ñam wi pare nga lekk dem borom bi ne mu ne warul ci aji feebar ñàkk a dem jihaad benn tiis mu ne wala ala anfusikum déet di war ci seen boppit nag an taakulu ba ngeen di lekk mit bu buyutikum ci seen kër yi kon amoo benn bàkkaar amoo benn contraint amoo benn tiis ci lekk ci sa biir kër ah kër gi nag comme lu fa dee yaa ko rey kon nag lekk fa amul waxtu amul heure amul heure boo ko bëggee rek su jàppandee mën ngaa lekk boobu moom ku nekk xam na ne du xaaraan ndax sa kër la mu ne déet bi war leen ci seen kër yi an ta'kulu ngeen di lekk amul ca benn problème min buyutikum ci seen kër ñu ne waaw nga ni benn ñaareel bi mu ne aw buyuti abaikum seen kër papa yi sa papa bi la jur këram ki bokk ak sa papa ndey ak baay ki bokk ak sa papa ndey ki bokk ak sa papa baay ñoom ñépp sa papa lañ kon seen kër doo fa ñëw ñu lay xeelu moom boo fa ñëwee sa kër papa nga ñëw sa kër papa nag lu fa dee ca nga bokk lu ñu fa taat ca nga bokk ndax bu ñu taajee sax yow la ñuy njëkk a woo ñaareel bi mooy aw bu yuuti buyuuti abaikum wala kër seen baay mu ne aw buyuuti ummahatikum amu leen benn contrainte ci lekk kër seeni ndey yi kër gi nga xam ni sa ndey ko moom joxe fa lekk togg taaj amoo fa benn contrainte boo ñëwee dangay dugg néeg bu la neex tëdd nelaw bu lekk taajee balaa ñoo lekk woola mu ne aw buyuuti ixwaanikum wala seen kër frère sa frère bi nga bokkal ndey ak baay wala ndey walla baay ay frère ngeen kooku lu dee këram yow la deewal kon kenn du la fa siis doo fa lekk di am xel ñaar mu ne aw buyuuti axawaatikum walla seeni kër sœur sa sër bi nga bokkal ndey ak baay walla ndey rek wala baay rek mu ne aw buyuuti amaamikum amu leen contrainte ci lekk ci kër seen baay tax yi baay tax mooy rakku papa magu papa bu bokk ak sa papa ndey ak baay wala ndey wala baay mooy lu jox papa bu ndaw mooy amam mu ne aw buyuuti ammaatikum wala seen kër bàjjen bàjjen moo bokk ak seen papa ndey ak baay ndey baay kooku lu dee ca këram it ca nga bokk mu ne aw bu buyuuti axwaalikum walla seen kër nijaay nijaay moo bokk ak sa yaay moo xam ndey walla baay wala ndey ak baay moom it këram lu fa dee yéene ko bokk mu ne aw bu buyuuti xaalaatikum wala seen kër tànta tànta mooy ki bokk ak sa yaay ndey ak baay ndey rek baay rek mën ngaa lekk ci seen kër te doom benn contrainte mu ne aw ma malaktum wala sax ña ngeen xam ni moom ngeen mafatihawu seen ak caabi mooy seen jaam xam nga jaam yaa yore caabeem fu la neex mu dugg duggal fii génnal fii ñu ne kër yooyu kër boo ci duggu mën ngaa lekk du tudd xaaraan du dindi gàtt du indi gàcce du indi contrainte mu ne aw sadiqikum wala sax sa kër xarit sa xarit bi ngay àndal ngeen nekk benn mën a àgg ci tuddantey doom àgg ci xamante xamante bu jégg dayoo ba séq yenn yi yaakaaruma ne di nga ñëw këram ñu lay xalaatal wala moom yaakaaruma ko ndax kër gi bañ nañ ko ba boo agsee yow yaa war a doon boroom kër gi démb ba xarit day ñëw day ñëw jël décision ci kër gi sax lu boroom kër gi jëlul te borom kër gi du ko dindi léeg-léeg nga ñëw fekk ñuy togg lu ñuy togg dama nga domo amu fi waaw daa naa domo daa daal am na lu ko metti ñu changé def maafe wala leneen borom kër gi même bu bëggoon domo daa bu ñëwee ñu ne ko élage ko changé lu mu ciy wax mënu ci wax dara parce que loolu lañu mel dañu koo séq kon sa kër xarit mën nga faa lekk ku dul ñii mu la tuddal beneen kër boo fi dugg bu dee ci sénégalais yi wallahi mën ngaa lekk te doom jafe-jafe xaw lan mais yàlla may nañu chance ci côté boobu ci suñuy jigéen ci suñuy doom ci suñuy rakk boo ko jaawalee nag ba dem bitim réew foog ni loolaa yem danga nga màtt sa conco ndax bitim réew da nga fekk ko bokk ak nit ndee bàyyi mu dugg ci këram mu ne ko noonu te ma toog fee ba ñu añ ba pare wala ñu reer ba pare kon loolu dalay wan ne ñun am nañu ay valeurs yoo xam ne bu ñu ko respecté woon toppatoo ko te mi ngi commencé réer nag malheureusement valeur yaa ngi commencé dem biñ ñu commencé tubaabisé de léegi nga xamante ni suñu lépp dañ koo tubaabisé léegi lépp dañ koy dañ koy calculer dañ koy nangam xam nga weer dee nga ñëw togg ñu kii borom kër gi laaj ceeb bi jeex na lu ko tax a jeex xanaa da nga woo ay nit da nga dugal ay nit ah affaire yi xam nga ku koy kaas sa jabar dootul ñeme woo keneen. dootu dootu ko ñeme mais démb kër yi day ubbeeku fànn kër gu ñëpp bokk da daan am ci quartier da ngay ñëw ci kër quartier fekk fa kër goo xam ne ñëpp fay daje am nañu wala amuñu wallahi yàlla daf ñu dogal man ci loolu la ñu yaru ñun ci loolu la ñu yàlla dafa dogal fu ñu mës a dëkk yàlla day dogal ni ñu kër day nekk këru quartier boobu nga ñii may tudd ci silmaxa yi ëppoon nañu ay ay presque lu lu tombe ay quarante quelque silmaxa ñoom ñëpp. suñu kër la ñu yaroo fa la nekk di fa fanaan di fa nekk ba takk soxna yore ay kër ñoom ñépp ci noonu la ñu ñoom ci ay silmaxa yoo xamante ni yàlla dogal na ni ay way laago mais loolu dafay faral di am day faral di am loolu yàlla moo koy def lu tax kër yu mel noonu boo ci yaroo foo jaar da ngay bëgg nit foo jaar dangay bëgg jaxasoo lekk doo ko mën a lekk yow dong dañu ko daan suñu papa daf ñu daan wax ni nee na gor te tiim moom dong bool kanamam bég nee na ku ku tiim bool yow dong sa kanam bég ku sis nga <laughs> loolu la doon wax boo tax da ngay lekk yow dong il faut nga woo keneen mu ñëw pour nga jéem a mais tey loolu moo tàmbalee dañ te jikko bu rafet la te dina ñëw ci kanam kon nag borom bi bàyyi loolu ñëw ci kër ci façon lekki nii aada yi am na ci aada boo xam ne aada sénégalais mais aada bu baax a baax a baax mooy lekk mbooloo taaj ci ëtt bi ñépp daje loxo yi jaxasoo ci biir ñépp daje moo tax borom bi ne laysa aleykum déet di waral leen junaaxun benn bàkkaar an taakulu ngeen lekk jamian mboole seen ngeen tiimandoo bool bi taaj Ibrahima Moussa Paate génn leen ñëpp génn waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne bu ñuy fekk bool bi seen tiiréew kanam gi commencé jëm ca kaw waaw yàlla nañ ci yàlla musa soo daaree ci daa soo jaaree ci daara loolu du la dal soo yaroo ci kër gu mag loolu du la dal moo tax jigéen dafa war a am melokaan boobu yaroo ci kër gu mag wala ñu koy waxa war a waxal ne jigéen dafa war a ubbeeku dafa war taaj lekk nit ñi lekk ko xolam sedd waaye di indi lekk sa kanam gi mel ni timis bu jëm gee loolu bu ko defee kenn du kenn du mën a lekk kenn du mën a lekk dangay ñëw ci kër maire yi taajal la lekk wallaahi amuñu sax lu ñu lekk ñoom ñu bàyyi góor ñi lekk ñoom ñu bàyyi mais gis nga sëñ bi lii lii lii ay valeur la yoo xam ni dañ koo war a dekkilaat kon borom bi leen laysa aleykum junahun an taakulu jamian amu leen benn bàkkaar ngeen dajaloo lekk ñépp teewandoo ñépp boroom kër gi génn ñépp génn moo tax boroom kër bul nangu ñu lay tibbal loolu du sagesse du ak mbaax ak loo ko mënti layee allahuma boo fi nekkul waaye boo fi nekkee même ni lekkoon jéem leen a woo nga mën a lekkandoog ñoom soo ko tàmmee doo mën a lekk yow dong loolu mooy ak mbaax xam nga ni yonent mu nee na ñamu kenn pour ñaar la ñamu ñaar pour ñetti la waaw kon nag da ngay fexe yow nga instauré loolu ci biir kër gi ñu taaj nga toog ñépp ñëw ngeen tiimandoo bool bu yaboo ngeen nekk na jeex ba ngeen ñeddu ko waaye barke boobu ci nekk ak yiw geeg teraanga gi loolu sant yàlla surga yi jóge feneen ñëw di lekk ci sa ñamu kër loolu sarax gënu ko rëy sarax la bu rëy rëy xoola surga bii jaay di jaay ba tisbaar mu jaar ci kër gi fekk ak ngeen woo ko ubbi kaay teewul ñëwal mu teg bagaasam fee lekk ba suur kii dimbale nga ko sarax nga ko 1200 yi mu naroon a jëndee plate kon dimbale nga ko keneen noonu keneen noonu keneen noonu mbaax googu laay wax ni nañ leen fexe yu mel noonu ñun ñu jéem koo dekkilaat mu dekki dund ci biir kër yi ndax loolu moom mooy yar gi nga xam ni islaam da ko bëgg waaye da koo santaane ci ñun waaye it nag laysa alaykum junahun an taakulu ashtatan nee na amul benn bàkkaar bu leen neexee ngeen lekk kenn par kenn mooy yaru yeneen xeet yi kii bi day xaw bëri yaru yeneen xeet yi mooy dañuy taaj ku ñëw jël sa plat tibb lekk loolu tamit dara newu ci kon ñaar yépp dagal na bul jéem a tubaabe nag ba ni ñaar yi dagan naa jéem a cherche bëre dagan na mais sa say njaboot yaa ngi leen bëgg yar ci loo xam ne bu ñu génnee ci la ñuy doog xam danger bi bis bu ñu xamul lekk mbooloo xamuñu cuqatandoo dinañ dem ci kër goo xam ne looloo fa am duñu lekk mukk wax dañuy foog ni lekk day daje rek mu daw di wër affaire kër goo xam ne mbàttu sax amu fa booy wër affaire mbala kudd doo lekk kon xale bi na xam ne lii mooy li jaadu su nit ñi dee lekk muy jooy téye ko ne ko bu ñu fontoo caw ko na lekk gi jeex mu xam nee ko ku gedd sa yaaya ay waaw defal ko ko ay yoon ba mu xam ne bu ñàkkee lekk du baax ci moom day ñëw lekk mais bu ne yii nga ne tibbal naa la tegal naa la fële garal naa la mooy yaa ngi yàq nit te yaay yu bëri dañoo foog ni bëgg nañ seen doom mais bëgguñ leen sa doom du day jooy rek nga tibbal ko beral ko xale kenn du ko ber da nga koy booleek nit ñi boole koog nit ñi mu ànd ak ñoom foofu la ñu koy corriger di ko jàngal bu laalee li mu warta laal ñu ne ko lii bu defee li mu warta def ñu ne ko lii loolu mooy tax xale bi day dem ba day ubbeeku day ànd ak nit ñi dafay daal baax kon nag garaawul tamit bu ñu taajee ku nekk tibb palaatam lekk foofu tamit am na yar bu mu laaj bu dee lu ñëpp bokk la ku gorewul mënoo lekk lekk mbooloo mooy lekk bu ñu bokk nga xam ne da ngay ñëw tibb sa moroom tibb soo dee biran biran mu sant jan ak boo ñëwee palaat bi da ngay tibb rek di ci tax bu yàggee keneen du lekk comme da ngeen koo bokk ku ñëw tibb lekk tibbal lu yem suur ni am na ñeneen ñu war a ñëw waaye nga tibb fee dem ca jën ya tibb fa gën a baax laal ca supame ja fa gën a baax la gën a jat tibb teg la palaat bi ba palaat bi du nooyi nga foog ni yow rek yaa koy lekk mais ñeneen bu ñëwee lu luñ fi fekk kon su boobaa booy tibb tibbal lu yem soo tibbee lu yem di nga xam ne danga bokk ak ay nit li nga bokk ak nit ñi du yow rek yaa ko moom sóoral ni wa yuksiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu da koy sóor ndax bokk na ci rus sa bopp waaye dimbale sa bopp rus nag ba rus jeex allahu axaqu an yustaxya min mbokk yow xale bu góor yow bu jigéen yàlla gën a yey ñu rus ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa waar saxaaba yi benn bis yaramam tàng jër jóg rek ne saxaaba yi istaxyu min allahi xaqa alxayaa fa qaala alsaxaaba ya rasul allah inna nastaxyi min allah walhamdu lillah فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلا yonent bi ne saxaaba yi rus leen yàlla dëgg-dëggi rus am leen kersa ci seen borom saxaaba yi ne ko yonent bi ñun day rus nañu yàlla yonent bi ne leen ku yàlla dëgg mooy koo xam ni day sàmm boppam ak la ca nekk da sàmm sa bopp yow jeune bi sa bopp dafa am ñetti mbir yu ci nekk foo jëmee safara ñoom ñooy sabab bi li ci jiitu mooy bët sa bët danga koy contrôler danga koy sàmm li ci topp mooy làmmiñ ku dugg safara làmmiñ la fa dugal waaye li ci topp mooy nopp fexeel ba li sa bopp yiir ci ay defkatu bàkkaar nga rus ci yàlla rusali yàlla ci say bët rusal yàlla ci sa làmmiñ rusal yàlla ci say nopp mu ne wal bat na wa ma waa biir ak la mu taanu na ko sàmm biir li mu taamu moom it biir la ak pëy foofu it problème la bu rëy a rëy kon yow ndaw li yow miy dund sunna yow mi bëgg jëm ci sa borom qul inni zaahibun ila rabbi sa yahdin danaa dem ci sama borom ngir mu jubal ma soo bëggee sa borom jubal la dangay rus yàlla taala wa tabaarak rus leen yàlla ci bàkkaar yow ndaw li rusal yàlla ci njaaloo rusal yàlla ci moy rusal yàlla ci ñaawteef rusal yàlla ci bàyyi liy merloo yàlla nga daw ko soo buggee nekk xaritu yàlla soo buggee jege sa borom soo buggee yàlla gërëm la rusal yàlla ci li muy bañ lan moo tax ngay def li sa borom bañ ndax doo rus yàlla yàlla mi nga xam ni moo la jox sa jëmm ngay tilimal sa jëmm di xasawal sa jëmm di salteel sa jëmm ci njaaloo ci njaaloo di taqal sa bopp maniyu bu la lewut di taqal sa bopp ñaq bu la lewut borom bi ne wala taqrabu zina innahu kaana fahisha wa saa waxuma sax ngeen njaaloo waaye bu leen ko jege ndax lu bon la lan moo tax yow xale bu góor bi ngay takkal sa bopp ci deretu njaaloo lu tax ngay takkal sa bopp ci manium njaaloo yow xale bu jigéen bi it la même chose sa boroom jox na la lépp loo soxla woon wa ataakum min kulli ma altumu boroom bi nee na jox naa leen lépp li ngeen ma laaj may naa leen ko dóoru si yàlla lu tax nga bàyyi ba guddi waxtu wi jaamukatu yàlla yi tànn di kàbbar di julli ngir dawee ko safara yow nga jëli jigéen ngir deme ngir safara yow nga jëli jigéen ngir demee ko safara waliyaasu billaah bàyyi ba digg guddi ñii ñu ngi nelaw ñii di naafila ñii di jàng alquran ñii di jege seen boroom nga waroon wax ni man dinaa ci bokk waaye nga dem jëli jigéen bàyyi ba guddi làqatu yaag moom que sa néeg walla ca otel ba walla feneen di làqu bëtu nit ñi ndax bu ñu la gisee mu nekk gàcce lan moo tax nga rus nit ñi te rusuloo sa borom lan moo tax ngay làqu nit ñi te làquwoo sa borom borom bi ne yastaxfuuna min annaas wala yastaxfuuna min allah bàyyi leen ñu ngi làqatu nit ñi te mënuñ maa làqatu guddi gi kan moo ko moom sa borom kan moo ko lëndëmal sa borom nga foog ni sa borom dafa lëndëmal guddi gi pour nga njaaloo nga foog ni sa borom dafa lëndëmal guddi gi pour nga làqoog doomu jàmm nga foog ni sa borom dafa la lëndëmal guddi gi pour nga làqoog jabaru jàmbur xanaa doo xalaat ni sa ndaw lii xale bu ndaw nga lu tax ngay sànk sa dund ci lu ko jarul lii ngay làqatu sa borom gis ne la alam yaalam bi anna allaha yara alam yaalam xanaa xamoo bi anna allaha yara yàllaa ngi lay gis de làqatu nga waa koñ bi ndax ñu ngi nelaw làqatu nga nit ñi jigéen ji sax mun nga ko muur mu sëgg rus nga dugal sa biir néeg mu ànd ak yow sa borom mer iblis di kontaan yow pare nga pour merloo sa borom ngir bégloo seytaan ñëw làqu ak jigéenu jàmbur ci sa biir néeg ci sa kaw lal ci waxtu jaamu yàlla nga nefa di mooy yàlla alam yaalam bi anna allaha yara borom bi ne xanaa xamoo ni yàlla mi ngi lay gis xaay li gën a doy waar kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin naasiya yàlla nee na wallaahi soo bàyyiwul li ngay def dinaa jàpp sa càmbar ngay bopp diri la nit ñi di ko xool ba bëccëg lu tax doo rus sa borom nga foog ni kenn gisu la amul kenn kuy làqu di njaaloo lu dul gis nañ la xanaa kay nit ñi dañoo wax walla ñu bañ a wax waaye gis nañ la de yàlla du ut lu amul seede amul du ut lu amul seede kaay ma wax la ni bi ngay njaaloog sa doomu dëkkandoo sa jabaru dëkkandoo sa rakku dëkkandoo pour yow kenn gisu ko aha kay yow gis nga ko yow ci sa bopp yow mi koy def moom it gis na ko xaw ma dégg ngeen wax ci walla déet ah yow mii njaaloo gis nga ni yaa ngi njaaloo te yaay seede sa bopp moom ndaw si nangu gis na ni mi ngi njaaloo yow yaay seede sa bopp ndax nangu nga ku njaaloo ak sa rakk bu jigéen wallahi tontu bi mooy déedéet ndax nangu ku njaaloo sa jabar wallahi tontu bi mooy déedéet ndax nangu nga ku ko def ak sa sœur tontu bi moom mooy déedéet gis nga say cër waxuma la yow sa jëmm lépp danañu seede ni danga njaaloo woon danañ ko seede say bët ñooy taxaw yowmal qiyaam seede la ni yàlla diw da doon njaaloo say nopp yàlla diw da njaaloo say loxo ne yàlla diw da doon njaaloo say tànk ne yàlla diw da doon njaaloo sa cër bi nga doon njaaloo yi sa sexe boo dee góor boo dee jigéen dana wax wallahi ladi laa ilaha gayru moo tax borom bi wax lu am solo yowma tashhadu alayhim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bi ma kaanu yaamaluun yàlla nee na tey la ngeen defoon seeni cër ñoo koy seede yowma tashhadu alayhim alsinatahum sa làmmiñ mooy ne yàlla diw maa ko jëloon une di mate deux heures du matin làqoog moom dugg ak moom fenn njaaloog moom sa làmmiñ ñu koy wax de wallahi say loxo ñoo koy wax say tànk ñoo koy wax sa awra mooy wax nga di ko dégg lan la ci li nga doon jëf xam nga ni li nga doon jëf du lu neex borom bi taala wa tabaarak borom bi ne sa gémmiñ danañ ko tëj ba du wax al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bi ma kaanu yàlla ne tey seen gémmiñ yi danañ ñu cell duñu wax seeni loxo di wax seeni tànk di wax seeni cër di wax kon rusal yàlla balaa ñii di la seede ki nga daw ba làqatu da fàtte ni danga am jabar ndax li ngay def bëgg nga ku ko def ak sa jabar ndax bëgg nga ko bu la bakkan mën bu la seytaane mën bu la xarit yu bon mën rusal yàlla néeg bi nga doon taxaw di kabar di julli ay ràkka nga dugal ci doomu jàmbur boo takkul te nga fa julli gee di fa julli ci tisbaar di fa julli tàkkutaan léeg-léeg sax nga julli fa ay ràkka ngir toroxlul yàlla néeg boobu nga jël tey di fi dugal keneen ku la lewul xanaa doo xalaat xanaa doo rus ana sam xel li ngay def nii lan la lay jëriñ wallahi dalay wàcc rek te daraja boo naroon a am ci yàlla danga koy perte njaaloo baaxul góor du ko def jullit du ko def xale bu góor bu bëgg a conserver avenir am du ko def ku bëgg teraa ngay ëllëg doo ko def moytu leen njaaloo yàlla nañ ko yàlla moytuloo yàlla nañu yàlla may aaral ñu suñuy dënn suñuy xel suñuy xalaat ba duñu njaaloo allahuma taxir qulubana wa xassin furujana yàlla na yàlla laabal fu ñuy xol laabal fu ñuy xel laabal fu ñuy cër dara gënul yëf njaaloo su ñëwee yowmal qiyaam bokk na ci ñi gën a torox ginnaaw ñi bokkaale mooy njaalookat yi ci fuur lañ leen di teg di leen lakk comme ni ñuy lakkee jën boo demee ci tefesu géej yi ni ñuy lakkee jën di ko jaay cent franc di la ci dugal ay équipement yeeg yooyu noonu lañ lay lakkee nga taxaw ci fuur parce que yaa lakk lu sa bopp yaa doon njaaloo mani yu bi duggoon sa yaram te mani yu boobu daganut ndax newuñ dagan na mayuñ la ko mani yu boobu parfois day génnaat parce que dugal nga sa jëmm takkal nga sa bopp ci lu bon a bon a bon taqal nga sa bopp ci lu bon a bon a bon loolu xam nga foo koy génn génnee ji fuur fuur yoo xam ni fuur yu yées la tannuur la tudd fa la njaalookat yu góoree gi jigéen ñi ñoom rek lañuy ñuy lakk futti leen ba ñu set beneen bàkkaar bu nit def booy lakk da ngay lakkaale gi yenn yére dont yére yi dalay lakkaale njaaloo ku koy lakkee dangay futteeku ba set ndax jamono bi ngay njaaloo sa yére àndu ci de yére bi nga sol àndu ci mbaxana mi nga soloon àndu ci lu tax borom bi ne su libaasu taqwa zalika xayr yërëb ragal yàlla soloo ko moo tax nga jaaloo kon danañu dindi yërëb ragal yàlla ci yow da ngay mujj nekk ku torox mbaam xuux moo lay tane sax wala golo yàlla nañ ci yàlla musal kon ndaw ñi conserver leen seen bopp téye leen seen bopp jamono bi ñu toll nii wér amatul de du ngeen xool rajo yeeg télé yi li nit ñi di jaay ci ay aphrodisiaque kenn xamul nu mu toll mooy jamono bu yàqu lañ toll soo bëggee conserver sa bopp téel sa bopp ba heure bu yàlla dogalee nga mën a takk jabar wal yastaafifi alladina laa yajiduuna nikaahan xatta yugniyahum allahu min fadli yàlla nee na yéen ñi amul lu ngeen takkee na ngeen jéem a fegu ngeen fekk seen bopp kon nag borom bi bi mu ñu leeralee ci wàllu lekk nañu mën nañoo def mbooloo lekk mën nañoo benn benn ñaar yépp dagan na day dellu rek ci al urfu wal aadaat day dellu ci aaday dëkk bu nekk léegi nag mu ñëwaat ci tegginu nuyoo booy dugg ci kër gu kenn nekkut walla néeg bu kenn nekkut borom bi nee na fa iza daxaltum su ngeen duggee kër ya wala néeg ya nee fa sallimu nuyu leen ala anfusikum seen bopp boo duggee ci néeg sa néeg sa kenn def ne salaamu aleykum wa rahmatullah am na jinne yu fa nekk yu jullit malaaka yi dañu lay fay soo la neexee boo duggee seen nga ne assalaamu aleyna wa ala ibadillahi salihin nga dugg sa néeg kenn new fa assalaamu aleyna wa ala ibadillahi salihin am na ku ma ko ma sox sama soxna mu ne ma yow yow yëfu dof yi ngay def ma ne ko ci lan yaa ngi koy dugg ci néeg la nuyoo ma ne ko yow mii yow sa bàyyi dof <laughs> pour moom booy booy nuyoo nit dafa war a nekk ma ne ko déedéet même boo boo duggee bu kenn newul nuyoo yow da génn am na ñu wuutu am na ñu fi nekk am na fi nekk da ngay nuyoo mu ne moom xamu ko woon kon loolu ku nekk ñun na nga ko xam te gis nga boo duggee sa néeg ne asalaamaaleykum lu bon lu fi nekkoon day génn waaye léeg nga dégg xale bu nelu ba jël te wooy sama lay wooy wooy yu fekk moo dugal ci néeg bi ay band bëgg a tëdd ak bandi bandi yi agressé ko loolu rek moom moom mooy wax ji moo tax daxal iza daxaltum buyutan su ngeen duggee kër ci kër yi moo xam nit ne fa wala new fa fa sallimu nuyu leen ala anfusikum seen bopp tahiyatan nuyoo boo xam ne nag min indillah nuyoo bu bàyyi koo ci yàlla ñor waaye ça va <laughs> booy nu mu demee naka affaire yi mbaa mi ngi nice quoi loolu du nuyoo de waaw nuyoo bi yàlla bëgg tahiyatan min indillah asalaamualeykum loolu mooy nuyoo bu bàyyikoo ci yàlla moom lañu yàlla jox nañu ko jël muy suñu nuyoo te gis nga nuyoo boobu non seulement tahiyatan min indillah la nuyoo la bu bàyyikoo ci yàlla waaye mubaarakatan di bu ñu barkeel tayyibatan di bu teey lool borom bi ne kadalika naka nii yubayyinu llahu lakum la yàlla di biralee ñeel leen al ayaati aaya laallakum boo yéen taaqiluun ngeen ànd ak seen xel te am xalaat incha allah darse bii di ñëw bi idnillah euh, dañu koy pause samedi prochain xam naa ragal naa du ma fekk wala bu ma fekkee day xaw a jafe ñoo war a ubbi ji ak benn juma fële ca Gàmbi dama war a dem jeudi incha allah vendredi mu ubbi juma ji yaakaaruma ma xëy samedi ñëw ba pare mën a ñëwaat dars mais ba ca topp incha allah dinañ def muhaadara bi ñu daan def balaa koor salaamualeykum wa rahmatullah